génn àdduna kii di astu soxna di wéy di lëmbe askan wi ba tax na ci xët mu njëkk l'enquête ñoom waa kër docteur a jëm ci ab geex tey jile ñoom sage-femme yi duñu dugg ci maternité yi te képp ku fa ñëw ñoom duñu la wàllu si Walf Quotidien di àddu ci lu ñu mel di wax ni mbirum astu soxna ñoom ñi nga xamante ni ñooy sol blouse yu weex yi tey jile duñu dugg maternité yi moom Macky Sall di sàkku nag ñu defal ko ab rapport bu jëm ci l'hôpitalu Sénégal yi Les Échos di wax ni gannaaw ba ñu jàppee juróom ci seen ay naataango ñoom waa kër docteur ñu ngi amal ab géréw ba tax na ñoom sage femme yi tey jilee képp ku dem di matu ji ci l'hôpital yi doo fa gis benn sage femme syndicat yépp yu nekk ci waa kër docteur ñoom tey jile dañuy simmi blouse yi teg ko ci suuf journal bés bi ci loolu sax la àddu di xamale ni bëccëgu tey jilee ñoom waa kër docteur duñu sol seen blouse yi Sud Quotidien di wax ci saaga ak kàddu yu ñàq warma yi nga xamante ni mu ngi am ci réseaux sociaux yi ba tax na moom journal bi sax di wax ni moom Sénégal dafa mel ni lii di réseaux sociaux yi ñu ngi lëmbee askan wi protection des données personnelles moom muy xamale ni foog ñu tegal ab mbir boo xamante ni dina tax ñiy def ñaawteef yooyu noonu daal di arrêté docteur Abdou Khadri Sanoko moom nekk ab sociologue di wax ni ab intellectuel daal moom bu dee dafa bëgg a wax li muy wax daka waa wax te kenn waaw ko xoqatal ca Parcelles Assainies ay samba boy yoo xamante ni dañ doon jaay ay larmes ñoom la waa dikk ak waa DST daal di arrêté loolu moo nekk ci xët mu njëkk lii di libération moom nag journal bi du xamal ni ñoom renseignement yi nan lañu def ba jàpp samba yooyu politique ak élection palum député yi nga xamante ni dina am ci weerum sulet Macky Sall xool ci biiri bët ay nataangoom di leen xamal ni bu ñu ñàkkee élection yi daanaka sunu nguur fii lay yem moom mu leen di wax ni dañoo war a booloo nekk benn ngir mën a gañe élection yi ñu jëm l'observateur ci élection yooyu sax la daal di àddu di gis ni moom Macky Sall daanaka ñii di ndaw ñi may ñu ko jàmm kii di Barthélémy Dias di ko tontu ni ko élection yooyu kenn mënu ko fi sàcc journal L'Info moom ci parti démocratique sénégalais lay àddu ak ki fi nekkoon njiitu réew di Abdoulaye Wade mu yëkkati loxo ba acca kaw journal bi duñu xamale ni ñoom waa PDS dafa mel ni seen tekk-tekkaaral gi ñu nekkoon dañ see génn ñoom sax ñuy woo ñëpp ñu daal di ñëw amal ab doxu ñaxtu ngir ñaawlu ñaawteef yi nga xamante ni nguuru Macky Sall mu ngi koy def ñoom sax ñuy xamale ni nguuru Macky Sall li ñuy def du yoon te ñoom nag seen mbébét mooy jéem a yàq réew mi ngir mën fi toog ay at ati at ñu àddu ci tàggat yaram ak journal bii di stade moom mu ñuy xamale ni kii di Boubacar Camara nan la nekkee mbir mu am solo équipe nationale bu Sénégal moom journal bi yokk ci ni footballkat bi nekk fële ca moom am na ay mbir yu bëri moom sax daanaka mën na joue ci milieu terrain bi wala sax ci lii di défense bi record moom àdd ci doomu Sénégal bii di Sadio maane muy def mbir yu am solo ci club boobu mu nekk di Liverpool ba tax na tey jile sax moom tolloo nag footballkat bu mag bu nekkoon foofu ca Angleterre di Ryan Giggs dañ koy jeexaleeg sunu làmb moom àdd ci ñaari doomu dubalees yi di Balla Gaye ak Sa ñoom ñi nga xamante ni naa nañu amal ay combat moom journal bi daal di wax ni ñoom ñaari doomu dubalees yi dafa mel ni ñu ngi ci ab danger ñu yendoog